Ah, doon boobu Sénégal ñëpp ko bëgg hmm. combat boobu senegal ñëpp ko bëgg hmm. tey gis nañ ni deux ans ci ginnaaw Ama Baldé tout le temps mi ngi doon réclamer Modou Lo tout le temps mi ngi ko doon réclamer Modou Lo tey Modou dem ba jël roi des arènes sa première sorti nga jóge nga dugg pikin jël fa roi des arènes jeune bi gën a garaaw Pikine nga taxawaat pour may ko chance je pense que loolu euh, geste noblesse la tey bu ko neexoon ne du ma duggaat Pikine damay wutiwaat feneen mais tey Modou am na grandeur nangu bëreeg Ama tey xaw ma lan moo bloqué combat bi mais tey Ama deux ans yi mu topp Modou Lo yëpp tey bu ñu ko fayul woon dara dara dara dara man sama gis-gis waroon na mën a bëreeg Modou parce que am na ki chance su dégg roi des arènes en plus am na ki chance su jëlal magam revanche donc euh, loolu yëpp tamit ay aspect yoo xam ne war nañ ko xool. nekk revanche bu waaw mu nekk revanche bu uh-huh. xam nga. loolu tamit aspect boo xam ne war nañ ko xool parce que tey Modou dafa dugg pikin daan ëmma seen avec la manière. Mm-hmm. nangu couronne bi ci loxo waa Pikine. dëgg tey Ama Baldé nekk jeune protégé pikin nekk espoiru làmb bu ñëpp nangul. Mhm. mu nekk champion vraiment nekk doomu champion. dëgg la tey bu ko Modou nangoo jox chance ci première sortem roi de arènes te ñëpp xam nañ ni. Euh, risque yëpp ci Modou Lo la nekk. ok euh, la naroon a laaj. ñëw ci ci risque yi. risque yëpp ci Modou Lo la nekk. parce que Ama du ci am benn pression. parce que bu ko Modou daanee di ko yàqal dara. mu euh, roi des arènes moo ko daan. dëgg la bu daanee Modou nag lépp lu Modou Lo yoroo nag. roi des arènes baak lépp da koy téye ci loxoom ba pare dugalaat roi des arènes bi Pikine. combat Modou Lo Ama daal du risque ci Ama moom. non du benn risque ci Ama amul benn risque ci Ama. est-ce que Ama tamit am na ay argument yu daan yu daan yu daan kii. Ama mën na daan ku ne ci làmb. Modou. Ama mën na daan ku ne ci làmb parce que li mbër laaj yëpp mi ngi ci moom mën na bëre am na encadrement. am na ndëgër laay. ñeme na te ñeme na. Mhm. donc euh, amul mbër bu mu mënta daan. damay faral di dégg ñu bari ñuy wax ni Modou tamit dafa mën a bëre torop ak mbër bu nga xamante ne dafa tolloo ak moom taxawaay. Mhm. waaw ñu ne ñu bari dañ koy xaar ci combat Ama Baldé mu nekk mu nar nekk combat bu mën naa wax ni combat Modou Lo Ama combat la boo xam ne je pense que euh, amul combat bu ko mën a dàq ci at yii combat bu neex la. parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne dañu pati pétrifié de talent ñaari mbër yoo xam ne Sénégal da leen bëgg làmb bëgg leen te Modou rawee ko roi des arènes rawee ko ci ay adversaires yu mu bëreel. Mm-hmm. du dëgg. dëgg la ba pare doon roi des arènes ba pare daan magam. dëgg la muy Eumeu Sène. Mm-hmm. di représenter Pikine yoroon drapeau Pikine. Mm-hmm. tey combat bi mun na permettre Ama mu récupérer roi des arènes dugal ko Pikine ba pare yoraat drapeau yoraale drapeau Pikine. ba pare fombal leen seen rangooñ avantage yi yëpp ci Ama la nekk avantage yëpp tey ci Ama nekk. Mhm. Mhm. kon yow daf mel ne bu fekkoon Modou Lo sa staffam nga bokk nekk président écurie am wala manager am daf mel du jëlagun combat bi heure bi non mais parce que Modou compétiteur la Modou mbër bu mu bëgg a bëree dama koy bàyyi mu dem bëreek moom bu ma nekkoon président écurie parce que Modou Lo il est tellement professionnel que. lépp lu muy def dina ko paramétrer ba xam ni ndax dina ci génn wala du ci génn. Mm-hmm. te du def n'importe quoi. tey Ama mooy xale moo nekk ci buntu làmb moo nekk ci ñu may ko chance. te je pense que chance bi may nañ ko ko et je pense que war na ko saisir. ba fi may waxee ba ak yow nii man maa ngi am yaakaar ne combat bi dina taxaw. mais mu taxaw moom la ñëpp bëgg. mais mais ñoom ñaar seen côté bëre Ama ak Modou côté bëre bëre bu sew kan moo ko ëppale. Euh, ñoom ñaar ñëpp dañu bëri bagage ci bëre ñoom ñaar ñëpp dañu bëri bagage ci bëre te dañoo am fu ñu bokkee ñoom ñaar ñëpp tànk la ñuy bëre ñoom ñaar ñëpp tànk la ñuy bëre ku jël seen tànk ñoo la mën. Hmm. ku leen song ñoo la mën te ñoom ñaar ñëpp dañuy song. mais dafa mel ni Modou songam tamit euh, yéex na léegi léegi bareetul luñ koy gis ci ay combat muy song. waa parce que làmb mooy tollu foofu plus ngay évoluer nga gën a calculer plus ngay am looy bàyyi am looy looy développe làmb moo mel noonu làmb munoo nekk di song di song rek wala ñu lay song di song rek plus ngay évoluer ci làmb plus am na yoo xam ne da nga bàyyi plus am na yoo xam ne yu bees yoo xam ne da nga koy créer di ko retenir. côté bëre daal yow Balla da nga jàpp ni Ama ak Modou ñoo tolloo ay sens. waaw mun naa wax ni côté bëre moom côté bëre pur lutte pure. Hmm. cinquante 50. 50 50 la hmm. côté côté doole. côté doole aussi. tey Ama nit ku am doole la jamono ji ñu toll mais Modou boo ko xoolee nu mu toll boo ko ci nattee dooleem rek da ngay nax sa bopp. da ngay juum parce que Modou nu mu tollu dooleem ëpp na noonu Modou nu mu toll rek dooleem ëpp na noonu foog nga jàppante ak moom pour xam li ma la wax. Mm-hmm. te mun naa wax ni côté doole tamit duñ ci kenn ñoom ñaar kenn du ci yóbbul sa moroom dara. Mm-hmm. Mm-hmm. xeex côté xeex ba. côté xeex tamit ñoom ñaar ñëpp gis nañ ni dañuy xeex mais Modou moo gën a ñor xeex. moo gën a ñor xeex et Ama bu ma ko doon rectifier ci côté garde laa koy rectifier mu gën a am garde mu gën a am garde te buy dóor mu xool lu muy dóor mën na xeex mais xeex bi dafa des. Mhm. Mhm. buy dóor buy bëreeg Modou Lo daal buy dóor na xool lu muy dóor nga gis. na xool fu muy dóor fan la. ok côté mystique foog man laaj la laaj la ci parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga foo dugg ak moom. Mhm. ñii yóbbu nga leen xëy na xëy na Casamance ñii nga yóbbu leen bi Bignona. kan moo ci gënoon a kii oyof bopp ñoom ñaar. mystique te Modou moom gis naa nga dóor ko mu moom mystique moom naa la wax dara de ñoom ñaar ñooñu ci làmb ji ñoo ci ëpp ñoo fi ëpp ngemb. Hmm. ñaari mbër yi ëpp ngemb ci làmb ñaari mbër yi dàq bëri ci làmb à part Balla Gaye hmm. ah, ñaari mbër yi yi gën a fonk mystique ci seen carrière. Hmm. ñaari mbër yooyu ci lañ bokk. te mun naa wax ni su boobaa moo du yóbbul dara amaa ci mistik Ama du yóbbul dara Modou ci mistik lu leer laa la boo ko waxee kay war nañ koo gëm ndax ku ci nekk jéem a jéem a loon nga ko xam naa dara moom. ñoom ñaar kan moo la ci masa laal ñoom ñaar kan moo la ci laal. ma kenn laalu ma ci. Ah. Euh, juste rek ba sama combat amaa dama ci tawatoon veille combat bi. hôpital laa ci fanaan yeewu dem bëreeg Ama mais loolu nekkul loo xam ne mystique la pour man ci sama xëy na sama entourage à l'époque ñu ngi doon jàpp ne mystique la mais du pour mystique parce que intoxication alimentaire ça n'a rien à voir ak mystique. Mhm. waaw li ma reeree ci guddi gi moo ma def intoxication ma fanaanee wàccu fanaane hôpital at ay ba ma xëyee ñu bëggoon euh, renvoyer combat bi ma bañ ne dem bëri ji. Mhm. ba ma ñëwee contre ama forme bi ma waroon indi sax. indiwuma ko parce que guddi gi yëpp. da nga daw euh, dama dama dama doon wàcc ba pare amoon jaare. ok ba ci 10 heures laa génn hôpital pour mën a dem waajali sama combat. ok sa combat moom combat bi après bi dégg naa manga ñu laaj ko mu ne booy hmm. xool sax mystiquement bi bi ñu nekk ci géej bi ba nga naan Balla Diouf moo gën a pare mais glissé boobu mu glissé am na lu mu ko yàqale yaa ngi fàttaliku glissé bi wala. waaw maa ngi koy maa ngi koy fàttaliku. glissé ah. naa def rotation. parce que Modou dafa dóor nen sama tànk nen bi tojul. ok ok nga jubilé. waaw. donc euh, xëy na yooyu détails yooyu ñun ñee koy gis mais man période boobu noonu j'étais tellement confiant que ni damay daan moodu moo tax yooyu yëpp intéressé wu ma woon. Mhm. parce que man toujours su may bëree mystique boo mën a am man du ma ko gis man li may waaj rek laay gis te dama gëmoon à 100 pour cent que ni damay daan Modou. Mhm. fu mu mënti jaar du am dara ci man. ba may bëree ak tamit pareil mais làmb moo bindoo noo xam ne. Euh, mën nga bañ a xeex ak say adversaire wala say adversaire du ñu xeex ak yow wala mën nañ la bañ a jot mais ñi lay jot toujours mooy ñi la jege mun naa wax ni man sama carrière li des sama carrière lu bari dañ ko saboté hmm. mais ba may ba may doon Balla di doon Balla di demal sama bopp di defal sama bopp mbër daawu ma gis ba may jàpp. di bañ lay tuddee Cœur de mbër daawu ma gis ba may jàpp mais da ngay toll benn moment ci carrière wala ci kër. da ngay dem ba benn moment peut-être da ngay déranger. Hmm. wala peut-être say succès du arranger ñenn ñi. Hmm. ñu saboter la. nga am ñoo doon gis gisatoo leen. non du loolu sax parce que mbër moom ba man ba may bëre. Hmm. daanaka daaw ma gis kenn dama daa demal sam bopp. te yàlla daf ma daa dimbali. mais sama sama entourage ba mu bëree ay dugg-dugg ay génn-génn ci laa commencé am jafe-jafe làmb. mës nga bëre benn combat nga xam ne combat bi mystique moo la ko xañ wala nga bëri xam ne combat bii mystique moo moo tax nga am ci ndam. musul am. mosoo dem ci sëriñ mu la da ngay daan combat bi te nii ngay daane. sans dépend sëriñ moom souvent mun naa wax ñu dofloo mbëri ñu bëri sëriñ si lañ bokk. <laughs> mbër da ngay am conviction d'abord gëm sa bopp gëm say entraînement gëm say qualité. Hmm. mystique door a ñëw. Hmm. du dëgg. man mosuma bëre benn combat daanu ne mystique moo ma daan. Hmm. dama naan dañ maa daan. nga war a daanu daanu damaa war a daanu mm-hmm. daanu. Mm-hmm. parce que daanaa bëre di daan. Mm-hmm. te musumaa ne mystique moo moo tax may daan dama daan dama daa gëm ni samay qualité moo tax ma daa daan. dëgg kon tey bu ma demoon ba. parce que ku bëre vingt cinq combats am ci dix victoire. am sept defet wax dëgg yàlla boo daanoo war nga gën mën a gëm yàlla ni ki ngay bëreel tamit yàlla dala daa may yàlla moo ko may tey. man saa yu ma daanoo dama daan wax ni tey dama daa daan muy neex te boo demee Medina samay supporter loolu laa doon xuloo ñoom. dañ dama daa bëre daanu ñu ñëw naan lii di jiin ay nit wala naan lii man leen hey dama daa bëre daan ñu ñëw jubile tey damaa bëre ñu daan ma. mais kon yow d'accord mbër bu jël ay plus de dix millions di ko def ci mystique. mën na nekk parce que. làmb est-ce loolu looy xelal mbër la. non du lu may xelal mbër. Ah. mystique dafa bokk ci làmb. mais il faut pas ñu jël ko teg ko dans au premier plan. la warul nekk au premier plan mbër entraînement moo war a nekk sa. sa sa say sa bagage. Mhm. fexe améliorer say technique. te mbër boo amee combat nga jàng sa adversaire xool lu mu mëne at lu mu mënewul ngay entraîner dans ce sens là. mais bu fekkee da nga am combat jël lépp teg ko ci musique di nga ñëw ci làmb yi ñu dóor la nga daanu. wala nga jël am combat foog ne ya nga sa adversaire ba sa xel dal nga ñëw mu dóor la nga daanu donc yooyu yëpp dafa am ci làmb nga toog ne sama sëriñ bi xamul dara wala dañ ma doon nax déedéet mbër danga am looy jiital ñaar yooyu jiital ba pare say qualité at say conviction hmm. gëm ni mbër nga mën nga bëre mën nga xeex nga entraîné ba am doole mystique nag xam nga pour lan la hmm. bët yi lay xool catak ak làmmiñ parce que ku nekk lay tudd ku nekk ay tudd sa état ku nekk ay man foofu la gën a basé wu ba pare fexe ñu bañ laa jàpp. Mhm. fexe sa yaram neex. moom pour man jàpp nit ki nii sax ba ba mu nooyee nga ñëw daan ko loolu amul. Mm. parce que chaque jour nga gis ñu ne diw dañ koo jàpp wala diw moo jekk ci mystique nga ñëw ñu dóor la nga daanu. pour exemple laa lay jox sama combat ak Modou Lo ku ñëw stade keroog Sénégal ñëpp dañ ne Modou maa ko jekk ci mystique. ah oui. mais kat moo daan. Modou. waaw kon mystique mun naa wax ni mottali la rek ci làmb. mais du lu tax du def mbër mbër mystique nekkul luy def nit mbër. takkaay yu bari yi ñu gis ci yenn mbër yi. amul sens lii daan mbër du ñëw sax làmb. ak ak yenn mbër yi comme Eumeu Sène duñ ko gis muy def yenn takkaay yu bari yi. loolu mhm. loolu tamit différence bi. waaw daa amul gàllaaj wala lan la moom. mais lool loolu ça diir rien dire chaque jour nga gis mbër takk ay ton làmb ji toll foo xam ne moom mooy moom ci boppam mooy dagg gàllaaj. sànni gis nga ko fi ba tàyyi. Mhm. kon gàllaaj boobu mu dagg sànni ban njëriñ la ko amal. bu ci defee 10 million amatul njëriñ yow nga bëre ba dagg say ak sànni te loolu souvent day sonal mbër yi parce que yaram ay sidite ci nekk ak deret yenn takkaay yu bëri yi day tax sa yaram sax du neex du fonctionner. Modou Lo dalaa takk ay tonnes. mais léegi gis nga ko. dëgg la tuuti lay takk dëgg la pour bu bëggee bëree. su mhm. bëggee làmbam neex yu bëri du ko takk. dëgg la mais mbër da nga war a am nooy nooy nooy nooy nooy taxawee daal. da war a ci làmb la bokk. da nga war waaw man tey ba may bëre benn affaire rek laay takk fii kii te pourtant damay ñaanlu comme ni ko mbër yëpp di defee mais yenn yi nag rafetal la mbër yu bëri léegi dañ ko jël def ko rafetal. pour caaj daal takk caaj nii jagar loolu noonu. dalay sonal rek. am na solo léegi sànq wax nga ko ci sa biir wax ci côté staff. Mhm. ku ni Ama Baldé. Mhm. comme ni ma koy faral di waxee rek. mu feccee mu neex bu bëree mu gaaw. day def ambiance day day day mobiliser. Mhm. daaw mu def année balance ñu doon wax comme am ak Siteu promoteur ni fayoon na ko ci soixante di millions ren ñu ni tag promoteur juboo ak moom ak estafam ci kase digganteem ak Tafatine. Mhm. combat ba yàquwaat ñu waxaat combat ak Modou Lo combat ba nar yàquwaat ci côté xaalis loolu tamit est-ce que jotul estafu Ama Baldé xoolaat wala Ama Baldé tamit xoolaat comportement bu muy doxalee digganteem ak estafam. waaw man du ma wax Ama Baldé rek damay wax mbër yëpp d'une manière générale que ni carrière dafa gàtt te lu la mën a jox teraanga lu la mën a jox teraanga kenn du ko fowe Ama Baldé daaw dafa année blanche et puis ay moroomu mbërëm yu bëri dañoo année blanche te promoteur nee na déggoon na 70 millions ñu bari na jàpp nañ ne combat boobu waru koo bëree digganteem ak Siteu mm-hmm. mais promoteur mu confirmé na ma ko démb ne fayoon na ko 70 millions. Mm-hmm. peut-être combat am ak Siteu am na droit ne moom mënul bëreeg Siteu parce que def na ci làmb loo xam ne. Mm-hmm. tolloogul fu muy mayee chance. dëgg la dëgg la tey Siteu des na tey mu def ay ay preuve tey xëy na yàlla boole na ko Papa Sow bu ci génnee tey mun na mun na taxaw ne Ama Baldé combat ñor na du dëgg yooyu yëpp ay étape la. mais dama wax ni carrière dafa éphémère mbër mun nga am blessure mun nga am ay gàllankoor mun nga xëy feebar du dëgg surtout yow boo nekkee mbëru gétt mbëru gétt mooy nga nekk xale mais fa nga nekk yaay mbër mi te li la wër dafa bari li la war dafa bari mbër bu warul année blanche ñaari yoon tey mun naa wax ni am na yenn dans la vie qui ne risque rien n'a rien du dëgg tey boo toogee ba ñu fay la quatre-vingts millions dëgg la am nga droit xëccuwaat xëccuwaat. Mm-hmm. mais combat bi pour man warul rëcc Ama. bu mu yàqu daal ci problème mu xaalis ci problème mu xaalis parce que kombaa bi avantage yi ci nekk yëpp Ama Baldé moo ciy profité. Mm-hmm. bu daanee Modou Lo dégg daale bu ko Modou daanee ñu ne xale la muñ jàngiwaat. Mm-hmm. tey Modou Lo bëri na fekk bombardier pour roi des arènes dafa daanu. ñu ne nii mu dem jëli Balla Gaye Balla Gaye da koo daan. tey kan mooy roi des arènes. Hmm. dëgg la. kon tey Modou loolu yàqal na ko dara bomb daan bi ko Bombardier daan yàqal na ko dara daan bi ko Balla Gaye daan lan la ko yàqal yàqalu ko dara te pourtant mi ngi bëree mi ngi compétir tey il faut pas ñu ñu ñu ba ñu ñu ñu ñu def suñu bopp yoo xam ne amul parce que yow xale nga heure bi mi ngi dem et temps est précieux temps bi xaarul kenn tey bëre 80 millions am ci ndam dégg daale wala daanu ci damaat jàngi. warul yàqal Ama Baldé dara. amul ay mbër Balla fi yoo xamante ne bi ñu soog a dugg ci làmb yaakaaroon nga ne danañ leen dégg danañ egg fu sori ci làmb. Mhm. mbër yooyu gisatoo leen wala wala kéewtuñ. am na wala amul bëri na bëri na bëri na. comme kan. bëri na dolf tey dolf. Mhm. man yaakaaroon naan dina dina dégg sax roi des arènes tey ku ci mel ni ay ñoom Pape Mor Lo dañ leen daa dégg ci làmb ñu doonoon ay espoir. bëri na tey Malal Ndiaye tey ñu ngi doon xalaat ni ay ay médaille d'or olympique dinañu ko indil ah bëri na ay euh, comment dire bëri na bëri na xaaral am na mbëri bëri sax yoo xam ne tey ñun amoon nañ espoir que ni dinañ sori lool ci làmb ah, ku ci mel ni Bathie Seras. Lagrose. Lagrose ku ci mel ni Lagrose Forza. Hmm. Forza. ku ci mel ni ñoom euh, Baara Ndiaye aussi euh, général ah bëri na bëri na daal mbër yoo xam ne tey bëri nañ potentiel te ñu ngi nax saay. te ñu ngi nax saay. ñu ngi nax saay. loolu faute bi fan la ci ñoom la wala ci staff la. tey faute bi mun naa wax ni euh, ci manqué encadré mbër d'une manière générale parce que làmb encadre ñu ko mbër protégé wuñu ko ci dara. mbër daal da ngay nekk xale dem entraîné ji am sa doole ñëw prouver boo prouver ñu kii la boo demee ba mënatoo ñu sànni la amatoo utilité et je pense que làmb war nañ ko mën a defaraat d'une manière que CNG di jóg di dem defi ay démarches CNG di tëgg làmb ba pare chaque année muy honoré mbëri ni ko FIFA di defee di joxe ay ballon door di sargal mbëri yi mbëri di gis ni seen boppkat am na fu ñu leen teg ci réew mi mais làmb fii da ngay bëri rek. forum ñu ne la champion nii nii fa la yem. Mhm. tegul ñu la fenn. ngemu door bi sunu làmb di def noo ko gisee. mais c'est très important mi ngi encouragé mbëri au moins mbër bu mbër chaque année bu ñu nee mbër bi yaa jël ngemb door wala écurie bi yaa jël ngemb door mais loolu motivation la double motivation la ci écurie ba wala ci mbër ma mu gën a góor góorlu tey AMPS li ñuy def. Mhm. di joxe les meilleurs lutteurs de l'année wala les meilleurs sportifs de l'année loolu c'est c'est des c'est des très bonnes choses da ko war di def. da ko war di def di sargal mbëri les meilleurs lutteurs de la saison meilleurs écuries de la saison meilleurs ménager ah meilleurs promoteurs tout ça c'est des c'est des en plus la. ngemb door moom ren yéen a ko jël moom écurie bi nga bàyyee làmb muy yoof hmm. ñoom ñoo jël ngemb door bi ñu war leen a jox ñu war a def cérémonie bi le 21 décembre. est-ce que hmm. mën nañoo xaar tamit Balla Diouf teew ci sans mu jot benn invitation. non loolu loolu moom yoof écurie yoof waaw euh, dafa bëri potentiel. dafa bëri ay jeunes yu bëgg làmb te Yoff dafa nekk dëkku làmb te je pense que ngemb door boobu mérité nañ ko amplement parce que foog nga dem écrit Yoff pour mën a comprendre li ma lay wax potentiel bu fa nekk. tey xaaruma invitation parce que loolu ñu joxe ca laa bokk dama cay dem. Mm-hmm. Mm-hmm. Malick Niang tamit écrit Yoff jël ngemb door sans moom mu compétir mm-hmm. moom moo daloon dóor dóoraat daaw. sans Garga Mbossé mais bañ fa jógee Garga Mbossé am na combat kon mën nañu am yaakaar ni la daloon Garga Mbossé dal ko mu am combat. parce que tamit war naa bëre. Malick ñu ngi dox ay combat am yu bari ñu ngi dox ay combat maa ngi koy ñaanal yàlla mu am combat nu mu gën a gaawee ñëwaat ci làmb ci Fallou Ndiaye bëggoon na combat am ak Reug Reug lu war a mën a nekk la wala warul. combat am ak Reug Reug dafa jaadu. combat am ak Forza jaadu na. Mhm. combat am ak Tapha jaadu na tey. Malick dafa war a bëre parce que dafa bokk ci làmb. Reug Reug moom nee na bëggul Malick Niang moom ci lu ñu Fallou Ndiaye promoteur bi wax ni daf ko raw. mais Reug Reug la kan la daan ba war a bañ Malick Niang li Malick Niang def ci làmb bëre dóor Reug Reug defagu ko kon seen combat ñoom ñaar war na mën a nekk. mais mais tey Reug Reug bu demee ba bare Gris fan lay jaar pour bañ Malick Niang. war ko mën a bañ. Ah, mais est-ce que waxoo waxu far waxu mbokk ak waxu far rek parce que. rëg rëg déggagul déggagul mu ñëw de te Malick Niang dégg na ko benn yoon. mais mais ñi Malick ñaa bëri la est-ce que rëg rëg bëri na ak ñoom ci làmb. ah loolu question bi. ñi Malick Niang ci làmb est-ce bëri na ak ñoom ci làmb wala àgg na rëg rëg mën na bëri ak Ama Baldé fu mu ne nii ci làmb. mbokk internet yi dañoo ci tontu ak rëg. non dama lay laaj rëg rëg actuellement nii. buñ doon dox kombaam ak Ama Baldé di nga ne jaadu na ci côté làmb bu bëre dóor dañ naan teel na ne defaat prouvé ji Malick Niang bëri na ak Sa Thiès. Mhm. Malick Niang bëri na jël ko. dëgg na ak Sa Thiès bëri na ak Ama Baldé gàllankoor moo ko daloon mu am tawat dem faju ji ba wér tey mun naa wax ni. ku bañ Malick Niang da nga ko ragal. kon Reug Reug suuf jëlul Malick Niang rek ko da ragal bu fekkee ni bëreewul ak Malick Niang rek da ko ragal. moom ak Forza tamit laa mujj la mais bi may mujjee jël Malick Niang Kéba Kanté daf ni ma ñoom ñaar duñ bëre parce que ay mbokk lañ mais Forza jël naa ko barki dem mais naa ne affaire ethnique nañ ko jël tegee ko ne le parce que bu dul woon làmb ñoom ñaar duñ xamante dañoo war a bëre. ñoom ñaar ay adversaire potentiel lañ lépp luñ ci mën a wax ay adversaire potentiel lañ. te ñoom ñaar kii mi ngi dëkk Yoff kee nga dëkk Bargny ñu écurie du dëgg. Mhm. tey ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi kii day fubal équipe bee kii fubal équipe bi ñu bokk fubal. dóorante daal la ba mu saf. Ah donc am na yu bëri yoo xam ne mi ngi mi ngi yàq làmb. te ñaari adversaire lañ yoo xam ne làmb bu explosive làmb bu kenn dul gis ngay gis. xeex ba dana métti non déggoo ma combat la boo xam ne combat gladiateur lay doon te combat bu neex la. Mhm. du dëgg. Mhm. Malick ñaa tafaatin combat bu neex la. Malick Niang rëg-rëg combat bu neex la tey même forsa rëg-rëg combat bu neex la. Hmm. wala Forza rëg-rëg tamit dafa dépassé Forza. waaw nee na su jëlee Forza. Ah, rëg-rëg kan la bëgg a bëreel. Bombardier. ba tey ambition la. ba tey ambition la. Hmm. léegi yow fan nga mbapate fan fan nga mbapate foofu la ñuy jeexalee. sa carrière mbapat naa Fass mbapat naa Pikine mbapat naa Medina mbapat naa Bargny. Pikine est-ce que daa nga ko toj ak laajteel ñu ma bërindool mbapat ñëpp sama génération ñu ma bëri mbapatu Cheikh Mbaba ah, dëggal mbapatu euh, Père Boy Bambara Grand Dakar mbapatu Bargny mbapatu Fass mbapatu Médina hmm. amul fu ma bëreewul mbapat Pikine ñan nga fa doon bëreel boo fa demee ba Pikine bëri na bëri naa fa ñu bëri naa fa ñu bëri ah, jamono yooyu ay Baboy Diouf ah, ñoo fa nekkoon jamono jooju euh, ay Pape Diop numéro 2 ñoom laa tolloon génération. Paate Balde doon ngeen tase. Paate Balde Medina lañ bëree Mbapat. dégg naa ko mën a bëre la. trop Pathé Baldé bi ñun dañ doon wax ni mooy mbër mi Pathé Baldé mu dañ doon wax ni mooy mbër mi kooku champion la. xëy na nag gàllankooru àdduna moo ko dal mais Pathé Baldé champion la. damay dégg ñu naan moo ëpp fit Ama Baldé moo ko dàq bëre. bokkul sax bokkul sax Pathé rek champion la mais Ama jamono ji liggéey na liggéey ba romb Pathé ci bëreeg ci lépp. Eumeu seen est-ce que ngeen bëre ndoom mbapat. Eumeu Sène benn mbapat laa ko dëkk. muy mbabatu parcelle unité 19 euh, mu indi woon nekka ma daan neeka daan dolf comme ñoom ñett àndoon mu toog ma jël sabar bi samp ko ci diggu tànkam mu jug ñibbi mais mosuñu bëri mbapat. ah. Mhm. am ma technicien la de bu ngeen bëri woon mbapat dana yéeme. jamono ji may bëri mbapat faale ma woon kenn faale ma woon kuy dund ci kaw suuf. yan mbër nga bëreel waat Pikine yoo xamante ne siiw nañ mbapat yu ñu xam. yi ma bëri pikin ñu siiw mbapat. defe naa ni ñi ma bëril Pikine mbapat ñëpp defe naa ni si wuñu de. bàyyi nañ. Moussa Dioum daal laa bëril mbapat bëri na ak Dolfu mbapat bëreeg Neka bëreeg Baaji ah, ah ay ñoom Pape Sène. kon kon kon Moussa daan nga ko arène ko mbapat. waaw kon kay yow Moussa sunu dafa doon toj mbapat yi nag ndeysaan. dégg naa ku mën a bëree la. ku mën a bëree ngi noonu Moussa ndeysaan moo tax gàllankooru àdduna rek. mooy jàpp ñeneen mais mais Moussa heure bi fu ñuy dégg mbër yi mag yëpp lañ ko waroon dégg parce que champion pire la Moussa li nekk ci moom sax wanewul lu bëri ci làmb. kon est-ce que jotul tamit mbër yi fi nekk ni instant bi di toj wala ñu nekk ay espoiru làmb waruñoo tirer leçon ci mbër yi nga xamante ne nit ñi yaakaaroon nañ leen te egguñu fi ñu. moo tax ma lay wax làmb dafa éphémère ku ci am yenn opportunité yi bu yoboo nga saisir ko parce que du chaque jour la yenn avantage yi wala yenn opportunité yi di feeñ ci làmb parce que fi réew mi toll léegi pour nga dégg sax ku bëre 20 millions. waxuma la 80 millions wala 100 millions bu la yàlla mayee chance ngay dégg loolu profiter ci le maximum. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo Balla fii ba suba mën nañu fee toog di waxtaan ak yow ci làmb. Mm-hmm. te du jeex mais yi tey ñu bàyyi la rek ba beneen yoon. kontaan naa trop lu jiwoo jeexul jógu fa. kontaan naa trop. Euh, looy wax ci ci ci Lutte TV ak pay per view ak genre. waaw di wax ne Lutte TV moom dafa ñëw yokk làmb parce que dañu nekk ay jeunes yoo xam ne tey mënoon nañ tukki. mënoon nañ def leneen bàyyi fi seen réew mais dañ nekk ay jeunes yu gëm seen réew gëm seen dëkk toog ci réew mi fexe fi créer dara loo xam ne tey mun na dimbali jeunes yu bëri ba pare di dimbali làmb mu nekk support boo xam ne tey. Hmm. mi ngi gën a yaatal làmb. dëgg la di jàppale làmb tey pay-per-view boobu ñuy wax ñu bëriñ koy ñu bëriñ ciy wax mais lépp lu mën a développer làmb mën na jóge ci pay pour view boobu. tey lépp lu mën a tax mbër. am gëdd ci làmb wala am xaalis ci làmb wala promoteur gis boppam ci làmb ba bañ a dawati mën nañ ko am ci pay per view boobu donc loolu monde làmb yëpp war nañ càmbar pay per view bi ba pare ñëpp adhéré ci ba pare xool ni ñu koy sécuriser ni ñu koy defaree ba làmb ñëpp gis ci seen bopp macha allah am na solo jërëjëf di kontaan di wax ni rek bu fekkee ne li ñu wax am na ju dëngate wala am na juumte ñu ngi koy jéggalu du suñu coobare di wax ni rek waaw kontaan ci Lutte TV parce que ni ma koy waxee rek ay jeunes yu dynamique moo fa nekk ñaanal leen yàlla fu ngeen bëgg at seen i projet yàlla yóbbu leen fa. macha allah ngeen ko bëggee di sant sumay waaju di sant uh, samay xarit ak samay am di jàmm. jërëjëf